ما توجهه إليه بقدر هزمة الذات بلا توجيه منه إليه أبدا والله هلا ما نقول وكيل والله هلا ما نقول وكيل كتب الله بس بي rëy na ci képp koo xam ni si murit nga waaye nag ku xamoon sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma amoon tuuti ak jaxasoo ak moom wala ngay sosi ci moom boo duggee ci kër gi sa yaram dana daw ndax njabootam gépp tey ñu ngi toog lépp loo xam si lum fi bàyyi woon la su xot nañ ko ba jebbi na jikko yi nga xam ni si moom la làmb woon moom sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma moom la doom yi am ñoom ñëpp ay gor lañu ñoom ñëpp ay jàmbaar lañu ñoom ñëpp ay murid saadix lañu ah ki nga xam ni tey nag moom la sa borom dogal mu nekk fi di sëñ Abdourahmane Mbacké gaynde di koo xam ni si ca dëgg dëgg dëgg dëgg képp koo xam ne xam nga sëñ Cheikh Mbacké boo ko gisee rek ku xamoon sëñ Cheikh boo ko gisee rek seeram dana daw. di fay waa di nuyu waa Touba TV yëpp di leen sant di leen gërëm di sant yàlla bu baax di sant sama waajur bii nga xam ne su ma duggee si kër gi jëmmam moo fi dugal. ku la bu dugal la fu baax mënuloo ko fay conseil municipal la bokk Daaru Xuddoos heure bu Daaru Xuddoos xewlee mënu mën nañ dem donc moom moo mu dugal si baax ma koy ñaanal yàlla yàlla yokk fanam mooy ko wér di ñaan yàlla ñu fi nekk képp ku fi teg sa tànk rek boo amee jàngoro wala aajo yàlla na ko yàlla faj. asalaamaaleykum mbokk yi ñu leen nuyu ku ne ci sa tur ak ci sa sant di leen siyaaru ci bis bu màgg bee ñu nekk. di bis bi nga xamee ne ci la ku tedd ki delloo ci sunu borom euh, ñu gën koo xam ci Xisroona Muharram ñu koy màggale fii ci pàkk bu sell bi di Daaru Xudóos di pàkk bi nga xamee ne mooy pàkk bu Cheikh Modou Mouhamadul Moustapha moom mi nga xamee ne bi ku tedd ki demee bàyyee ko yoon wi moom moo ko tracé teg ko ci yoon wi nga xamee ne ci la war a tegu ba mu yegg si fii tey euh, ñi ngi fii nag ci kër Cheikh Mouhamadul Moustapha moom soxna Asuburi euh, ñun nag ñu ngi ànd ci liggéey bi boobu ba tey ak mbokk taalibe yi ñu ko séqal Euh, ñu ngi ci waañ wi ñi ngi bërëb bi di dundal li nga xamee ne mooy bis bi ci ni nga xamee noonu la ko ku tedd ki santaane ci jàng alxuraan ci jàng xasida salaatu ala nabi tudd yàlla euh, ak mboolem li nga xamee ne mooy jëf yu baax yu ñu tàmm ci bis yu mel nii euh, yàlla dogal na jàng nañ fi ci ab lim lu toll ci 61 ci ay kaamil boole kook li nga xamee ne moom lañ jàng ab lim ci murabaxaat muy jës bu mawaay bu muxaddamaat mimiya ak mboolem xasida yi nga xamee ne ku tedd ki moo ko bindoon tagg ko ci yonent bi salallaahu alayhi wa bés bi tey sëriñ bi nee na mbégte rek la ci am ndax ku ne xam na ne sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim da doon ñaan suñu borom di bësam yi gën ci ay bësam di bës yi muy dajeek moom te bësub tey bii di fukki fan ak juróom ci weeru muharam ci la sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim dëkkaale jamono ak boromam taawam bu tedd ba Cheikh Mouhamadin Moustapha ko njaareem ko ci dëkk bu sell bi di Touba nga xam ne Serigne Touba damaa wax ne bi mu jëlee xalwatoom bi fii ci Daaru Xuddoos gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ci ahlu badrin laa bëgg a bokk ba suñ borom wan ko nattu ya nga xam ne moo ko ci war a ba bi Serigne Touba jotee nattu bi ba dem ci géej gi jaayi cërin jaar Jolof jaar Louga ba dem ci tukki bi dël si ni ba dël si waat njaareem ba tubaab bi résidence surveillée bi ñu ko téye woon lépp sëriñ bi ak bëggam yëpp moo doon dellusiwaat Touba. Bismillah